Maktab Touba Daaru Saam njiit la di bàyyi sëriñ lay ñu ràññiku lool ci bépp jumtuwaay bu jëm ci dundal diine mu yaatal ay bànqaasam nag tax na mu ubbi leen màkkaan mu bees ci dëkk bu sell bii di Touba ci yoonu gede wi boo jógee jumaa ja jëm gede mi ngi lay féete ci sa ndeyjoor jàkkaarloo ak kër sëriñ Mamor Mbàkke Murtada lépp lu ngeen soxla ci wàllu alxuraan ci mbindin yu wuute ak ay mool yu wuute rawatina kaamil yi nga xam ne sëriñ Abdoulahan Mbàkke moom sëriñ Soy bu moo ko bind wala sëriñ Amidun Lo wala sëriñ As xeeti kaamil ba ci kaamilu doore yi nga xam ne ñu bari taamu nañ ko ngir joxe ko àddee wala jox ko ku ñu fonk bu dee téere xam-xam yi niki noonu wala téere sëriñ Abdourahmane Mbacke Daaru Muxti wala téere sëriñ ji Mbacke yi nga xam ne moo xam muy tombi sëriñ bi di waxtaani sëriñ bi wala sax ma faatewul jinaan di diiwaan bi nga xamante ne bii dajale na lu toll ci juróom benn téeméeri xasaayit ak ñaar fukk ak ñeent bu dee élèves yi tamit dañu leen a beral loxo bépp téere bu ñuy teewoo ci seen wàllu programme moo xam muy arabe wala français am na fi. générale Kabou Fall et frères ba nekk ca Touba Daaru Khoudoss ami tamit succursale maanaam beneen place ca Touba marché Ocass ñoo leen di dalal jàmm tey bëgg lool ci indi leen boisson au lait de coco yu naturel yi nga xam ne moom la adduna yëpp di wër coco avec fraise coco avec melon coco ak vanille coco ak banane coco ak mangue ba noppi di leen fàttali ni comptoir commercial Touba Madina alimentation général moo teewal fii ci Touba dëkk bu sell bi Sosenap nap nag nga xam ni mooy defar lépp luy basang basang de qualité basang yu yànj lool ba noppi am nañu lépp loo xam ni dafa di ay fruits pomme orange banane raisin mandarine poire tàndarma yu baax te mucc ayib lool te neex lool prune kaki nectarine kiwi wala boog nga soxla li nga xam ni moom moo di ay ginaar ginaar rek ñëwal hot dog ya jambon ya viande hachée merguez. bâtiment plus import export si Touba mbokk yi ak si ngeen lépp lu ngeen itti woote si ba gën karo ba nga xamante ni moom la ñuy itteewoo si mbooleem àdduna wërngal këpp jàpp leen ay karo yu ñu importé ba Espagne Italie Chine si dëkk yi gën a mag a mag ñu ràññee leen si wàllub liggéey karo dama ni mbokk yi bu ngeen ko itteewoo si même réew bâtiment plus import export du ca morom waaw ñoo leen yembal ay karo sol faïence Italie ay grès céramique italien ay faïence espagnol ay sol grès italien 40 sur 40 30 sur 30 60 sur 60 ay grès poli italien 60 sur 60 karo de haut de gamme ay grès italien tout genre d'Espagne 25 sur 40 20 sur 30 dama ni am nañu ay produits yu Inde 25 sur 37 wala yeneen gox yu àdduna wërgal këpp ay faïence pour seen cuisine bu bëggee mu taaru rafet loolu bâtiment plus import export ak sina moo leen yembal ngir seen taaru waañ 25 sur 37 lépp mu ci neex bismillahi rahmani rahim alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil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 jëmmi alquran ak Serigne Touba mi nga xam ni moom lañ siy liggéeyal ngir fas yéene ko see wuutu ci teraanga yim daan teral ñi daan jàng alquran liggéeyal si Serigne Touba moom yi nga xam ni moo ñaanoon boromam wuutu képp ku yëngu si alquran mu teral la ku bëgg nag wuutu sëriñ bi nag si teraanga yooyu mbokki jaayante yaa ngi nii. mbokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom julli ci yonentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal di ndokkeel jullit yi yépp ci at mu yees mii nga xam ne moom lañu tàbbi yàlla nanu yàlla may nu àggale ko ci ak wér ak tal di dénk sunu bopp nag di dénk bokk jullit yépp ñu gën a maase teg sunu tànk ci taqwallah ndax lu nit di fàggu moo ca gën fàggu nag mooy xëy di wut di ko wut waaye ku am taqwallaa mu jëfe ko ci ay ciram ndax mooy li gën ci lu nit di ay di sonn ci ay ciram suñu boroom mi ngi ñuy wax ne na ngeen fexe ba ku ci xas ba doonub jullit rikk buy faatu na faatuwaale ak ngëmam jàll na ko yàlla jàpp ndalal mi ngi ñuy wax ci alxuraan it ne ku ab digam agsi dara du ca topp loolu nag lañ cay dégge mooy fukki weer ak yaar diisu ca wàññi ay fan waaye ay fan ñi ngi koy wàññi ci ay noo ndax noo gu dem du dellu mooy mat bés mat weer matum at kon at mu yees saa bu dikkee nañ xam ne noo yu bari dem na te du dellu siwaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaara ngi nii ñoo xam ne ku mel ni ñoom ci càggante akuk ndof amut fenn ñaar yàlla di xéewale ñaar yu yàlla di xéewal nit ki yoo xam ne ku ko sàggane ba mu raw ko ku sàggana nga noonee ku tàggookum xelam a nga noonee muy ak wér akuk jot jamono bi nit ki amee ak wér ak jamono bi nga xamante ne yitte yu bari songagu ko bokk yi ko amug wér ciram yépp nangu am xelam na cocc <clears throat> mu moom boppam ca la muy liggéey saa bu waxtu doxi soxla jotee mu mën ko fa bàyyi dem soxla soosee doxiwu ko ci can santaane suñu borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kooku ku sàggana nga noonee ku tàgg ko xelam a nga noonee ndax wér ga ak jot ga day dem ba yàgg mu tàggoog moom ndax wér gu nekk wéri dañ koy dàq dana ko jot jot goo am ñàkk jotoon ko dàq dana ko jot te loo ci defut dutoo ko def dal di cay teg ne jamono ba mu amee wér ci ay cëram akum xelam amuk jot bu mu defee luy dem nii rekk la bu yowmal xiyaama taxawee balaa jéggi benn jéegu yàlla dana ko taxawal na ko jamono ba nga amee jot loo ca doon def jamono ba nga amee wér loo ca doon def e, su boobaa nag ak ndaw day taxaw ak mag taxaw ak dund taxaw bu dee ak ndaw mu ne ko ba nga doonee ndaw sag ndaw ci loo ko ràppal yàlla na am tontu su ko taxañee na ko dund ga lépp sax loo ca doon def ak ca loo jeexal sa dund yàlla na yàlla defal tontu kon boog bis yi ak at yi du di du ñëw ko dem nii kese kese kese kese junj naa ne ci ay noor lañ koy wàññee moo tax suñ bi ne ba mu ne nu ngeen di waajale bis penc te faatu moo koy moo ca yóbbu nit ñetti mag yu am xam-xam kii ne ko at kii ne ko weer kii na ko bis bu set mu ne ko yow mi koy waajal bis bu set yow lay gën a bett ni nga koy waajale mooy da ngay fexe ba nooyi goo nooyi jàpp ne geneen du ca toppaat te nga fexe it googee nga def ca lu baax mu yóbbaleel la ko kenn ci ñu baax ñu yàgg ña tuuti nee na bis bu wéy ci dundug nit ki te bis ba wéyut jeexut ci lam ko jeexal mooy dox xaq yoo xam ne da koo amal bokki nitam ak bokki jullitam walla daf koo jeexal ci faratay suñu borom yi wala boog bis ba seetlu na ne lam ko doon def yi mooy daa da cay sos loo xam ne lu amal njariñ diine lay doon ak réew mi walla boog jeexal na ko ci yër ay téere yoo xam ne bu xamoon dana ko fàttali bu xamagut mu xamal ko nee nag ku jeexal bisu bu ci lu dul yooyu ak yu mel ni yoon ci yu baax yi waxuma la moom ci boppam waaye tooñ na bis ba sax ndax yàlla bintoon bis ba ngir loolu ngir caaxaan kese kese ak bàyyi ba mu jàll kon nag bokk yi at mii mañ doon ñaan yàlla fekk ku ren yàlla may na ko nañ ci sant yàlla te gën a gàttal mëbët yi mébët loo am ne la sa kanam doo xool mukk ci sa kanam waaye da ngay jiir rek di xool gàttal mébët te fexe ba yi ñuy def mu néew mu bari ñu xam fañ ko teg te rafetal ko te bàyyi xel lool li nga xam ne saa amee nu mu amee la ñuy wax rek day bett ñépp laa tatikum illa baxtatan fexe ba buy ñëw fekkuñu ci la gënal sunu borom kon nañ fexe ma at ñi nga xam ne mooy dugg ñu teertoo ko tuub ndax kenn ku ne moo gën a xam boppam ku dul yàlla koo xam ne def na rëcc rëcc yoo xam ne ba mu koy def moo ko ci namm baat bi may bëgg a jëfandikoo day metti moo ko tey wala da ko rëcc na xam ne at mooma dem na du ñëwaat te dana ko nett li jël na gaaw tuub bala mu ko yóbbul loolee fas yéene nag lim dëgg ma lépp rafet bokk na ca ku mu amee doon xaq mu ne la jàpp loxo ne la baal ma àq su fekkee lu mu ko mën a baalu la ci wax su dee lu mu tegoon ci mu dara mu wax ko ko su dee lu mu ko amee doon ca alal mu delloo ko ndax bokk yi nit bàyyi ko na fi ba tàyyi ñam ameeloon ne xëy ñemeetu ñoo wax te bëgg nañ ko leen ko jox loolu nag jamono bi nit ki dox ak a wax na dem delloo la lam amee woon ay bor lam ameeloon ñoo ñees at mu jot at mu fet mu teru bu yàggee ba yàgg na dem ndax yàlla may na ko mu fekkee waaye lu mu waxoon nit ci dara na dem na ko waxoon naa la nangam ak nangam jéggal ma lu metti metti moo gën ne miig ak moom ba dem kooko xol bay nux nuxi da dégg ci almeel lu ñu ne nañ ko baal àq ak neexoon kenn taxaw ne mënuma koo baal ñun lu tax mu ne nangam ak nangam ñu fay ko ko wàccoog moom waaye ñëpp dañ naan ceel ña mën a wax wax ña mënta wax ne miig ak moom di ko ko xoole te kat boo ko fay fii dana ko fay ëllëg noonu lañuy ñuy tuube tuub suñu diggante sunu suñu borom te jéggalu suñu mbokk yi doomu aadama yi ci seeni der ci seeni alal ak ci sunu làmmiñ mooy sunu mooy seeni der wax nañu ne nit ñëpp lañuy juum waaye ñiy juum bu ñu demee ba ñëpp du juum tolloo ñi cay gën mooy ñi nga xam ne sax bu ñu juumee delluwaat gannaaw tuub te tuub moom saa bu ko nit ki defee day mel ne ku mu sàmbaka day set wëcc Ibnul Jawzi nee na ni mu gisee nit ñi ñuy dox saabu at jeexee ñu koy màggal di telli telli ak a yëngutu nee na waxu ne waxut ne ngi dox ci jamono ji ci ci seen dund di dox di dox di dem waaye dañuy puus dund gi mel ni ko yàkkamti mu jeex ñu ne ko loolu nu mën a amee ak nu muy amee mu ne guddi gi lu mu yàgg-yàgg duñ ko jeexale ay julli duñ ko jeexale jàng alxuraan duñ ko jeexale ay azkar waaye ay grand place lañ koy jeexale grand place bu tas ñu dem ci beneen di ngonnal wala boog bu ñu demee ba gisatuñ ku ñu waxal ñu taal seeni téléphone lu ñu romb dugg ca commenté ca wax ca lu ci seen yoon nekk ak lu seen yoon nekk ba bët set guddi gi ci lu ñu ko jeexal ci dara ñu ne kon xanaa gannaaw jant bi fenk na bëccëg bi moo fi des moom bëccëg bi moom war na cee man lu ko ci rawoon ca guddi ga mu dabaatal ko ci bëccëg bi bokk mu ne déedéet bu bëccëgee itam ginnaaw daa fogoon biig nelawut guddi gi bu ndekki am na ñoo xam ne buñ ñu ndéegoo ba noppi waxuma ndékki de ndékki tuuti ab ay guux lay doon waaye ndéegoo da ngay raxasu su ndéegoo ba noppi daa di fatu nag jëm ginnaaw tusbaar diggante tusbaar tëkkusaan foofa sëñ bi ñaata lu baax moo fa jàll waaye rek day daal di dekkaliwaat grand place yi démb yi nga xam ne yu guddi la mu dekkal yi nga xam ne bëccëg lay doon fu mu fu mu koy defe ca marché ba lay dem ca jaba fu mu dem léeg mu fekk kuy nelaw sax mu yee ko ndax danaan teel rideau bi ne ak kii kay day nelaw mu daal di xefeet mu tàmbalee waxtaan ak moom jëm bu kenn xam Ibnul Jawzi nee na ñooñu nag dafa mel ne dañoo dugg ci gaal goo xam ne gii ma ngay dox di dem te yëguñu ne gaal gaa ngi dem te yëguñu ne gaal te moo ne gaal gi day mooy àdduna nelaw ak lekk ak naan ak dem ay grand place taxul ñu andi na fi ginnaaw dañuy laaj suñu dund ëllëg luñ ko ci luñ ko jeexaloon suñu ndaw ci luñ ko rappal saa ak dikkee nañ tuub lañ defoon daaw te fas yéene ren gën koo baax yàlla na nu yàlla may ñu bokk ñi mel nangul seen tuub te buñ tuubee dañ daan wëqët daw dabi la jéem a jéem a dabi la rawoon te fas yéene suñ làmmiñ yi dutuñ ci teg ci dara ci dara li ñu am mu néew mu bari mu ñu doyloo ko ba bañ di dóor dem di gàddu di gàddoo gàddu ba nga xam ne léeg-léeg nga seen kenn daal ne tarafet àgg suuf mel ne ku am yitte ci suuf si te amoo jenn yitte da ngay bañ mu gis ko walla téléphone bi ne car mu xool ko tegaat ci suuf ba yàgg mu far ko fay diwa set mu ne ne ko nekkuma fi léeg-léeg tappale ya rax fiir ga rax demal demal rek nee na nekkuma fi mu ñëw ne la nee na nekku fii nga xam ne ñi muy jot loo ay waxam sax da leen di jàngal wax lu dul dëgg sax fa ndax mi ngi jàkkaarloo nga ne ko nekkuma fi kon boog li mat dellu gannaaw daa bari wax nañu fi ne bu guddee bu amatul ku mu wax la mu taal téléphone am euh, xamu ne taal téléphone googu di def say loxo nii di xool ak di commenter. alquran wax na ci ñun bu yàgg wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna alsama wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masula li muy toppale loxoom nii muy àndu muy xool la ca topp loola du dem teg neen ndax mënoon na ciy bind alquran wala ay askar waaye lim naan jàkk ay gëtamit ba léeg-léeg mu toxañu mënoon na cee xool alquran wala ay adkaar waaye son bi muy déglu it mënoon na déglu alquran wala ay adkaar wala lu mel ni moom xol bi mu koy xoolee di mer ci commenté walla mer walla bëgg di commenté it su tàmmaloon boppam diglu alquran day mujj neex fi moom ba nga xamee dara dutu ko saf moo tax ca ay jamono dañ daan teg fii alquran mu fanaanee jàng ba bët set te biir kër Sëriñ Abdou Lahad ko daan tege waaye foo toll dañ koy dégg ndax boobu dëkk bi xumbeegul nii euh, Sëriñ Moodu ku sës Sëriñ Abdou Lahad nee na nee na Sëriñ Abdou Lahad woon lam ci jublu woon mooy ginnaaw nit ñi ñëwatuñ di ko wax dëgg ku ñëw da nga fay wax sa waxi bopp ak di seet la nga xam ne jàpp na ne dana neex fi ma nga di ko wax nay déglu alxuraan boog mu di ko wax boppam subhanallah kon boog foofa mooy tolluwaay bi bu kenn ne mënuma mel ni moom bis bu set nit di déglu lu lu baree bari loo xam ne moo gën a yàgg moo gën a metti fuuf diglu alxuraan ju jàng alxuraan du tànqal kenn xawma lu tànqal kenn waaye alxuraan bu xamee li muy wax ak bugg xamuta ci yam ku yàgg ci moom ba yàgg fi moom dara du dugg ci xalam ab xolam su ma tuddee alxuraan nag tudd naa asalawaatu ala nabi ndax ci santaane suñu borom yi la bokk inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima moom itam ci liggéey bi la bokk istigfar ci liggéey bi la bokk euh, istagfiru rabbakum thumma tubu ilay waaye ñaan tam di ñaan yàlla ci liggéey bi la bokk ud'uni astajib lakum waaye tudd yàlla itam ci bañ a tànqal kenn ci sab xol ci saw làmmiñ bañ a ilxaax ilxaax boo ko déggee mooy danaa fexe ba kenn du fi dégg te nag lu ci nekk da ngay dem fam fa ñañ ko soxla nga jaay leen ko ña ko soxla nga jaay leen ko yaa ayuha alladina amanu dkuru llaha dikran kathiran wa sabbixuhu bukratan wa asila kon loolu mooy liggéey bi di lekk ka naan ak nelaw indiwunu fi fanaanee wër ay grand place bu jeex mu dem ci beneen andiwunu fi kon koo xam ne li ëpp cim atam daaw ca la ko jeexaloon na wàññi ku xam ne bis yaa ngi dem at yaa ngi dem ci tële la jëm tële dem ba taxaw di julli te ko ticc ba mu waree julli julli wutoon dem ba rukkoo jafe yax yépp di metti ba mu ko mënee ca la amee woon solo bokk yi nit dem na ba am ba xamee si njabootam misaal yi bari na waaye du fàtte mukk waxtu julli saa bu waxtu julli wu jotee kenn du ko wax fam yamoon démb ci fam ci alxuraan kenn du ko ko wan te diw nee na ko maay sa doom mu ne ko ndax dama sama am doom bi mel noonu loolu nag ci ndaw lañ koy tàmmee moo tax sëñ bu mag bi ñuy waxtaan ak euh, sëñ diw sàngam ba ñu baree bari simbo seeni rongooñ ndax wax ju diis raglu gannaaw bi la doon sëñ diw waaye ab xale la woon booba am ku ne kii li nga koy wax xëmu ko gone la mu ne ko dama bëgg mu màggaale ko kon boog lu ci nekk ci ndaw lañ koy tàmbalee ndaw mooy amug wér mooy am jot na tàmm jaamu yàlla balaa ak wér di dikk na tàmm na tàmm jaamu yàlla balaa ñàkk jot a dikk yàlla noonu yàlla dafa dégg ak topp te musal ñu ci seytaan nekk pexeem yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina lu jëm ci wàllu col lépp lu ngeen fi baaxoo gis rek dañu ko yokk waaye wàññiwuñu ko ay xeeti cuuraay yu wuute ngir yéen ñi nga xam ne da ngeen yëngu ci kurus wala xeeti parfum yi ngeen di soxla moo xam muy sikki gerle wala óot ak yeneen ba ci wàllu yi wala sérigraphie wala lépp lu jëm ci wàllu multi service waaye ngeen mën faa amee itam billet d'avion yéen ñi nga xam ne da ngeen di tukki waaye bu leen fàtte itam carte de membre yi nga xam ne moo soxal mbirum Touba ca kanam wala barkeelu yi bu dee moolu xasida yi am na mooli Touba daaru saam yi wala mooli asna xadim yi wala daarul himma wala daaru minam xasaayid bàyyiwuñ dara lépp loo xam ne daal soxal na jumtuwaayu murit ngir ay leeral mën ngeen a woote ci 77 144 03 03 wala 76 755 60 60 daal yéenay buuru charcuterie waaye fromage emmental ya fromage gruyère ya lépp luy beurre président lépp luy thé jasmin café arabique lépp luy suukar ci qualité lépp luy produit pâtisserie ak ay produits diabétiques fii la fekk baax comptoir commercial Touba Madina et frères représentant exclusif de Sosenap amul morom ci liggéeyu basang yu yanj te lépp qualité la fii ci Touba saa yoo bëggee basang bu rafet da ngay ñëw seet si ñu jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15

waaye nag mbokk yi ñëw leen ngeen découvrir suñu ay lumière am na nañu ay contact dernière gamme ay lumière intérieure wala extérieure am na nañu ay spot sol escalier seen salon fépp fu ngeen mën a bëgg si biir kër gi bu ngeen bëggee lumière ca kaw kaw ca kaw mur ba ak si leen bâtiment plus import export mi ngi si Touba Daaru Xuduus jàkkaarloog marché bi Maktabatu Touba Daaru Sam si Touba Daaru Xuduus mi ngi si yoonu Daaru Muxti mbokki taalibe yi bu ngeen fi accès fekk fi Baye Serigne lay moo leen yembal lépp luy jumtukaay ngir ngeen jaamu yàlla ngir yokk xam ngir seen gëstu na fi alquranul karim ulumul quran ulumul xadis am na ay téere xam-xam yu wute ay fiq tawxid tasawuf bu ngeen bëggee taarix histoire wala géographie lépp fi yem ay téere xam-xam yi mag ñi bind bu ngeen bëggee ay téere version anglais français lépp a ngi fii daal ci maktabatu Touba Darou Sam ay téere Serigne El Hadj Mbacke borom xam-xam bu mag ba def ko si wolof di waxe Serigne Touba mbooleem téere Serigne Touba yéen a féere si wolof ak it ay xasida yu Serigne Abdourahmane Mbacke maktabatu Touba daa ko sa mbokk yi yemb na fi lépp lu jumtukaay ngir jaamu yàlla ay kurus si jadd ay yëre yiw jàllabi yu baax a baax cuuraay nag fi la fekk baax ci mondial pizza lu ngeen namm rek jot ca mbokk yi ñu ngi nekk fii ci quartier Touba gare bu ndaw virage Ndaamaatu angle Sëñ fàllu ci garage yu taxi yi ana loo namm wax ma loo namm ci pâtisserie wax ma loo namm ci fast food wala épicerie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 salaamualeykum wa rahmatullah